kàddu bu gàtt la ñaari kàddu rek sëriñ bi mbooloo mi yëpp ñoo àndandoo tey ni la siggil ligaale Cheikh Seydi Mouhamed jaale la sa mag ju baax jooju moomu gis tey jii sa soppe boobu sa xarit boobu ka daan wax sama rakk ju sës ci man lépp doomu rek sa wéttal boobu sa lépp mu Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour tey la ñuy soog a yëg Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour dem waaye billaahi wallaahi tallaahi waxoon naa ni keroog ma ni Serigne Mansour diggante samedi samedi la dimanche doxu fi samedi la gane àdduna samedi la dem dara ñaaw ci moom bi mu fi toogee ba dem ñett rek moo doon ittee tuwaawal tool yi téere yi damay wax ni ñett la ko yàlla defaloon fexe woon na ba boo nee borom daara ji boo bindee lettre sànni ko ci réew muy taxawaal boo boo boo amee njub ak mbaax da ngay jël lettre doon tele def ci benn tur yóbbu ko Cheikh Sidi Mouhamed sëriñ bi fexe woon na ba sopp nit ñi lu mu wax ñëpp déglu ko ñëpp mu eskay safoon na yàlla ba boo ko nee ñaanal ma du bind sëriñ moom su mos xam bind bu la nee jeex na na borom ba si lay boobu dafa noo dafa toog woo Serigne Cheikh woo Serigne Moustapha Sy Jamil woo Mame Malick woo ma wallahi tallahi ci fàntire téere ñu toog Serigne Abdou toog mu ni ki tey Serigne Cheikh nettali na ko keroog te ziyaaru daara dootuma seen kilifa dootuma seen baay dootuma seen sëriñ joxoon sëriñ ab ni ko yaay seen baay yaay seen sëriñ yaay seen kilifa sëriñ bi tey lañu la bëgg a wax ni la ñoo ngi engagé wu ñun ñëpp njabootu Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour jëlaat buum bi takk ko ci suñu digg jox na ko tey ba ëllëg boo nee lii nii wii boo nee ñoom ñu moo boo nee ñu noonu ak sëriñ bi wutuwul dara demuñu fenn li xale yi naan namuñu dara ñun namuñu kenn yow yow rek loo joxoon ñu nag rafle wu ci kilifa xiifuñu sëriñ bi nandal nañu suural nañu bañ bii suñuy biir fees amuñu kenn ku soxla ku dul ak si ak Maalik ak Cheikh Seydi Mouhamadou kon si njaboot gaa ngi noo ngi engagé wu waat di la wax ni demul fenn lu ànd ak sëriñ Cheikh sa taaw bu baax bii taaw la dama koo wax ni ko sa baay dugg fi ñu lay wëri kenn wëriwu la fii la la teg ci wetam nekk ak yow di la tette tette benn benn nga ànd ak sa waajur yii négoo ba dem négul ba négoo ba mu dem ngay soog a ñëw kon si noo ngi ànd ak moom ci ginnaawam ak sëriñ Moustapha si jëmil rakam ak man Mame Malick mii nekk ci sa ginnaaw soo nee ay ci ñu ni ay ja boo nee altu ñu ni al xamuñu fenn demuñu fenn sëriñ bi réew mi toj na dëkk bi naqari na soxla yi bare na aajo yi bare na yaa ngi soxla yaa ngi nit ñaa ngi guddi altine gaa ngi Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour koo gis mu nekk ci tànk bii ci reetaan ka def yëpp gémmiñ gaa feeñ waaye xol ba réew koo ci gis li mu yor ci soxla xajul ci biir tànk bii mën nga ko sañ nga ko fajal ñu ko aajo yi sax nga danaa ci woon ñëwoon sëñ Babacar ci dëkk Diop kii la ma gis la ko sëñ Mahamadou Mansour ne lépp lu ma xam fekk leen ci Abdoulaye kii la sëñ Cheikh Diop ne lépp mu ngi ci jox sëñ Abdoulaye Sall kon mbooloo mi kii la ma ñu waxoon sëñ Abdoulaye Aziz doy nga mag ñi doy nga ndaw ñi kon doy Thank you. الشرعية وتوجيه الشباب توجيها إسلاميا صحيحا يمكنهم من السير على هدي القرآن الذي يهدي بالتي هي أحسن الشباب في كل مرحلة من مراحل التاريخ سر قوتها ومطعس عزتها وكرامتها وحامل لوائها ورايتها وقائد جحافلها إلى المجد والنصر والعصبة المؤمنة التي تركزت في دار الأرقم على يدها تحقق نصر الإسلام help you سبعة يظللهم الله يوم لا ظل إلا ظلهم وعدل منهم شبانا أو شابا نشأ في عبادة الله وقال في دعوة الشباب إلى اغتنام الفرص من أجل تكوين شخصيته روحيا وعقليا وخلقيا اغتنم خمسا قبل خمسه شبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك وصحتك قبل مرضك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وقال في عصمة الشباب من الملوعة والانحلال وإحسانها بالزرع من استطاع منكم الباء يعلم من الشاب الذي ليست له صفوة وتلك أهم ركائز تعداد من بناء الشباب بناء إسلاميا صحيحا يا أيها الأولاد إن سموكم يزداد بالإخلاص والإنصاف أوصيكم بثلاثة من شأنها تسهيل سيركم إلى الآداب أوصيكم بتأدب وتفكر وتعمق في البحث كالأسباب فالمرء بالفوضى يزل حياته ويبدل الإصلاح وأذانكم مثل السكينة في الدنيا وشأنكم مثل الرضا في بهتاب في الختام يقال شكرا عميق لابن المبارك الحليمارسي الذي لا يدخل أي يمين في سبيل أداء شأن الحضارة المالية وندعوكم جميعا إلى مزيد من الجهود لمواصلة المسيرة السائرة te nit ki nag li aar la bopp moo gën a dëgg li laa di def te jotaay yi tax na ki ko moom kenn la wala Cheikh Sidi Mouhamed Mansour mérité na ko itam te damay wax ni yàlla ñu suturaam na ci waawoon ñëw bi dugg ci bi yàlla nangu ko sax na ba parce que jiitu la seen xaaj ko liggéey ma liggéey rek taalee tàkk ma ne loolu nag yéen daaw ko gis ñun rek la jigéen ci gis ni waaye moom jigéen la ko gis jigéen ji boo di seet si da ngay nekk ci néeg wala mu nekk ci biir nekk intermédiaire jigéen ji déey la nga dem nekk ci néeg bi déey ko mu tontu la nga ñëw wax ko jigéen waaye jigéen ji ko gis yàlla may na que bu dee dox ci benn benn moom benn jigéen ñi jóge Thiès ma laajee ma ko ndax teg yi ñuy teg di dem Màkka dagan ñoo fekk mu toog mu wax mu ne ma waxtu ko mu ne ma nee ma su fekkee laaj mu xam lépp mën naa koo tontu su fekkee day laaj lu mu xuloo ji ci biir jiyee ma xaw ñu toog te gannaaw la ci benn mbokk bu dul koo xam sant jaay ñoo ko am jaay ñëw laaj ko ko maa ci gisee ngi taxaw maa ngi taxaw mu ne ah su dalee sa xel rek donc su ëllëg sa beneen waay jóge Thiès ñëw laaj ko ko mu ne ah gis naa ñu xew bi ñu ci biir nag maa maa suñu rek ñaata góor bi waaw benn question ñetti laaj te kenn boo ko ci sama morom nieve, 不是我。 Tomar xam-xam benn góor góor jigéen bi dafa may si masul màggal la li léegi si nit ñi ba sonn la yow ma di ko gis ñu weer mën a tuuti nit ñi ma lan la loolu doo muy yaa ngay jëw de ñun lu ñuy wax man ku leen ñu seen ba loolu gën ñu ñu ma wax yi de Fallou nuyoo wuyu suñu Fallou kër yi ba daa yeewul ma ne waaye baa ngi boo koy wàccee rek ñebe ji rek ma ne ko man tam loolu laay doon ci ma tur beneen ba tamit yeewul foo ko neex daal am lu ko neex rek xaajoo ma ne ko man nag dañ ma ne waaye baa ngi boo wàccee rek moom la bëri nag ñu joxante loxo bu la loolu neexee ñu joxante loxo su ko defee ko gis yu moom ko fii ma ñaan moom moo di ñu ko dee ko defe xomb loolu ku njëkkee def boo ñëwee mel ko dee ko defe xomb bi métti yi jigéen maa ngi ko ndax sëriñ baa ngi jëm mag ñëwal ci xombal toujours man ko kon organisation bi dee ko di ko xombal ngir il ko tuuti d'accord ci